Кади Amfa Beauty, Bomba Design, Pinot Fashion, Saoan, Sokalima, fi ndaanaan yi tase gargoot bi xew fi cofka yi daje mer caba dafa doonu yaayam bari fee mën togg amul morom daamu kadi ci biir set na kadi loo bëgg mu ne kadi moo fi gën a wóor kadi taamu naa ko are mer taxaw waay arabirakatnakat maasaallah masalah. mu ne foogoon naa ne kati mënul di ah kati kay maasaallah li nga umpale ne mën naa ko bëri na trop te boo ma jegee ma formé la bi laay gis busi sëyjee yërëm naa la dama koy gunge rek ndax comme danga ah deh deh. kay moom dañ ko bàyyi rek dama palaa di gaa ma tubbli balaa imam maaleykum salaam. ah da nga fay si de. salaam. waaye yéen yéen a sañ tey. yàlla def leen ay mag yu am ñam. rek ñaan boobu ma a neex ci korite. mais yaay nag tey sa dafa sañ non ya ada dama sañse dama hmm. sañse ba ci daal di jëlal es bi sóoro gis nga waaye oh, yaay maa jantal yow xoolal yow ba nga juddoo nga jantal mooy sa coofu kër nag ah gis nga loolu nekkee waaw man moom Mana? Ndiaye Diatta danga maa warul baalu àq sax yow yaay sama kilifa te yor bu rafet nga ma yor. donc baal naa la baal ma àq. yàlla nañ ko teewee at yu bëri rek. yàlla saxal amiin amiin yaa rabbil waaye maa la gën a kontaan. ah lii moom neex na ah, waaye jàmm si la lépp xet. ah Ndiaye ndaa la neex. Ah, dégg na dégg ah. merci beaucoup et eh, yéen bi am lu mu ci kër gi lu bari vive Mahmoud. ko ca kaw. bàyyi jaamu loolu passé na. laay la waaye ay ana mère mère bi ma àq beeg ci gindi gaale bi. ma àq baal naa leen ni yàlla boole baal. saraxam yag seen loxo yalla xaaral ko àjjana man ko way mer mbay bàyyi ñu fi ken gañu fi waaye. yàlla yalla en tout cas yag ci ko nga xam bëgg turam bi léegi mu gis léegi gis ka fi léegi nga gis café la indil daawul woor nag heure bi la ñuy rus kàcceeg leen koor yàggul ñu daawul woor rus nañ dafa ci hmm. palaat bi man famille Ndoye genre kër gi. waaw mais madame Ndoye nii nga def. waaw gis nga de papa. oulala mais bi nga def ni tey mooy ban rouge ak lan. ak saumon. saumon ak sauce bi nag. sauce verte. xanaa ak rouge ak saumon mooy drapeau famille Ndoye. famille Ndoye. yaa ngi gis yaay di def. xoolal bu baax de nga mun togg bu baax. Moussa yaa koy wala maa koy feccal moom mu toggal <laughs> d' accord. <laughs>

sama kàddu la ba pare comme loolu la nag àddina amul solo baal naa la. waaw léegi nag xam na lan la dangay firi drapeau bu weex bi nag yow xamante ne man yow laa am bu ma mere nag bëgg dërëm doo nga ma ci dugaloon nag ak ëppal. ak ŋàppaale. <laughs> mais yaa ngi soo de. gis naa la. <laughs> baal ma nag mën naa la. maa la raw. li leer ba leer daal mooy kenn mënul dugg seen diggante ñun duñ ci dugg de. ku ci dugg sax yaa ci def. yéen i la ah yàlla na jàmm yaa ko waay. loolu ma xiif. da xiif de ah suñu añ bi sax est-ce que seddu <laughs> ah. loolu ma lii rek. kontane tinale dinaa ko doxale daal. gis nga def rom sen taw rek. grand frère tay gis nga naayam bi kat bi lim doon arrondir ko. e ki wana na mais mag gi sama ben affaire da nga kessa garab bi tey. wa amee. allahu akbar. e yeen sante ngeen na e bigati na de. bu ngeen ko dela baal du ni sen naw la ngeen bokkal koñ bi. ay waay am na xoti wul bay leen li ngeen def. wa da nga def lu sew rek to sante ngeen na kalau dang wala serif ak reetaan bi kon ko gis aljana am ah serif tey big na yow nak ni nga def yow kon yaa ngi sarme naar bi ba léegi serif mahmoud ñun ñak fay ah kon da ngay ñaani newnal ñun de la sa sama xamul na salam alaykum doomi wa alaykum assalam sama xalé yi ngeen def way ñu bi sama pet mais boy jalam ñu ma yakal bari na de loolu bari eh mais eh, eh eh wa me. suur nag eh, mais suur li nga def tey ci bis bi. non tey moom dama sant. non lii korite nga. non lii nag korite ah. duñ ko mën. ah. non Meng moo ànd ak euh, Mame Balla ñoom ñaar ñuy déglu ci mbir mi mel ni Peter Crass mu ànd ak Frédéric Mendy. waaw ah, mais booy na loolu bu mu la jaaxal. booy na xanaa nag xuloo xeex nit buñ cee dëkk. vraiment xanaa xamoo tos bisu mel ni ngay profité. baalu àq say naataangoor ak say nawle. mel nan nanu meloon nan. ndax na Mame Balla mii sama xarit la ah. dina ay noonu yàlla boole jéggal. ñu téye ko at yu bëri. amiin amiin amiin waaye yàlla bàyyi leen ba ci kanam. waaw ñoo bokk tali bi. waaye musuñu nekk ay noon déedéet dafa mel ne yow yaay mburu waaw man yow yaay soow te mburu soow. waa jaxasoo. loolu ñuy diwante nañ bër bi de lii sûrement àdduna mooy waaj a est ce que nekkul bëri sanitaire bi la jeex na mu ngi noonu. Eh, li nga def ci seen galax bi am non galax loolu wori chrétien na ñun dina ray def sûrement da nga jaawale ñaari wori yi quoi eh njaay way <laughs> eh eh, eh musa njaay musa njaay wa njaay beng beng beng ah sama xol set na de jërëjëf bind joxon na la fi 10000 10000 kesse da bàyyi ma def ci dara ñu doxal suñu rek sama ndewonal sax bidu suñu rax lay kambal de surveiller foofu ma surveiller mbéeg ay bin tel ni nak. joxoon naa la fi diibin ay teel ni waaye tamit teel naa la joxoon naa la fi diibin eh <laughs> fogeewu ma la fi woon nag waaw damay dem seeti sama yaay nii rek ah waay loolu rafet na de loolu rafet na de nit amul lu dul ndayam la dëgg la parce nit amul lu dul ndayam yàlla hmm. nday benn nday ñaar nday ni bàyyi ben dëgg naa dëgg wallahi la asim li nga def ni moo tax doo torox dëgg la lu njay da nga bax déedéet wallahi jaru ko ay way se te te ay way njay njay njay guddal fan way njay lu dul doy ko yalla yàlla barkeel naa la bayyi nga dem rek ah da nga dem ziare kat yi waaw d'accord waaw dem len nuy len melen bu baakha baakha ba ma len di ziar way bu leen guddee dégg ba ci kanam inshallah waaw bu len guddé de lu ñuy def fofu ñu kay la ñuy def ñu gën a gaaw di si la ñuy jël def lu rafet la waaw waaw xam nga bési mel ni ngay dem ànd ak sa soxna ziare say mbokk ziare say goro en saafonte ak ñoom mhm. xam nga fedd lu kóor dafa baax si doomu aadama kati <laughs> tey sa loxo yu bëri baaraam yi <laughs> eh, mais ngi sedd mais gars non mais monsieur Ndiaye noo def yaa ngi si jàmm va maa C'est fi sa Balma. kii qui balna, ça va bien bien. merci. Euh, monsieur Ndiaye mon mari chéri. ah d'accord. Euh, c'est ton mari mm-hmm. Chéri c'est ta femme ah vous connaissez Vous Ouais, waaye yaay Chérif nit la war naa ko présenté sama patron yaay buy taxaw ak moom fii ci sama nawle mu may tuutal. Chérif Chérif loolu noo ko a yi tamit yow kii di représenté patron la nuyu fay rek ah àddina dañ koy maslaa. wax dëgg muy jaay chez méchant ah, papa déedéet papa fiiraange ba ci lan pérasse am na yoo xam ne mënu ma koo cautionné lii du fiiraange leneen lay ndurul. ku ci ñaan affaire ci lan. da nga bëgg a xam dëgg bi da nga ko bëgg a xam kay wax ma lan la. sama patron la aussi j'étais toujours menti mosuma liggéey ministre service laa nekk ministre service bi nga liggéeyee man maa la war a former. mënul nekk yaay wax ma Ahmed Fall Ndiaw ay man Serif mii moo bon. waa Serif li sa a bank. Serif yaa bon yaa yées.

fajkat yi saf sell te wóor